participer waxtaan bi yooyu noonu moom mu wax ki nga xam ne moo di LeBron James moom la bëgg ci xolam kii mooy représentante bi moom moo leen téye seen loxo yóbbu leen ba ci ki nga xamante ni fépp dugg ci bi donc MIP fi ñu toog noonu premier jour bi c'est vrai ko ci ginnaaw moom ñaa xarañ loo mu toogoon fa mu ànd ak kii di Wally Seck mais bii euh, moo di loge yi nga xam ni dañ leen defal traiteur ak ñëpp ñoo fa nekkoon à leur service di leen jox ñuy lekk di naan di seetaanaale match en même temps donc sénégalais li leen intrigué woon mooy juste le mot prestation nga xam ne ça a posé des problèmes c'est que ku dégg prestation tu vas croire que ni dafay dem foofu def way def chant def leneen ak leneen peut-être que prestation bi ça ça euh, ça t'amène à réfléchir que ni dañ ko invité en tant que Sénégalais en tant qu'Africain parce que il donne rendez-vous aux gens en Afrique maanaam fii ci Sénégal ne que dinañ ñëw jàkkaarloo ak sénégalais yi wan leen ni que carrément am na ay surprise xam nga avec Wally Seck peut-être que tout est possible parce que euh, am na yeneen euh, affaires yoo xamante ni peut-être que divulgué wu ko wala waruñu ko ñaaxarañ loo ngeen di gis noonu moo ànd ak Wally Seck fii ci terrain Chicago bi ci euh, All Star Games bi nga xamante ni c'était le dernier jour. déjà j'ai remarqué que moom il a mm-hmm. parlé avec beaucoup d'amour on mm-hmm. n'entend pas ces mots mais on gis gestuel bi ni que mm-hmm. mënul sax parlé avec beaucoup d'amour mais est-ce que du tamit stratégie. Mhm. de d'appel à offre. Mhm. parce que bu ne maa ngi dem foofu prestation euh, je pense que c'est un peu trop dire pour quelqu'un qui n'a pas joué du tout. mais aussi mën na nekk euh, benn appel à offre. waaw pas Assane stratégie la d'appel à offre. mais moi je je vois <coughs> euh, <coughs> sunu rakk ji. Mm. ku nu xam la. Mhm. Mm. ci kër gi la bokk di daanaka sax nag pour l'avoir xam la donc euh, si quelqu'un ci année boobu la ma njëkk a wax ni dama bëgg a téye musique bi nii jeune. Mhm. su nit waxee loolu. <clears throat> maa ngi nuyu kilifaam yi sax euh, suñu kilifa Thione ballaago ak waajuram bu jigéen ki ne Diouf. Mhm. Euh, ñu kaa nuyu bu baax ak ay bokkam. si si xam li ma doon wax sànq ci wàllu ambition. je parle pas de stratégie je parle d'évolution mhm. et un jeune qui en veut qui est hyper ambitieux c'est-à-dire li ñu naan wuti ko mhm. da wuti ko aujourd'hui i y a dix ans quinze ans ci ginnaaw cette image là du du ñu def benn effet c'est-à-dire euh, diw mu ngi NBA c'est pas un événement par contre dans le contexte du buzz qui fonctionne comme pas possible. Mm-hmm. C'est le roi des buzz du buzz. C'est normal aujourd'hui aujourd'hui tu tu vas aller à NBA toog ci stade bi seetaan match. ça peut ne pas être événement dans mais dans son contexte c'est quelque chose d'immense. et loolu de mm. un jeune Sénégalais comme Wally qui qui travaille qui quand même qu'on puisse dire travaille et fait son chemin. il faut l'encourager et le féliciter. ça la stratégie d'appel à offre parce que créer le buzz pour mm-hmm. vraiment avoir le buzz. Mm-hmm. c'est c'est une belle stratégie. mais li gën a li gën a tax intrigué nit ci sax lu ci bari mooy publication bi nga xam ne da koo dindi retiré ko ci Instagram am parce que après ni ngi mokkari lañ doon def ñëw ci Instagram bi commentaire yi ne naan euh, nuyul ñu euh, Kobe Bryant man ci boppam euh, ma topp logique boobu doon ko ci tooñ di ko takkine parce que aussi euh, c'est un jeune sénégalais boo xam ne il ne fait que innover ci li nga xam ne moo di wàllu musique et cetera parce que euh, bien vrai que dem ba Chicago participer ci li nga xamante ni moo di match yi seetaan ko ànd ak say xarit et et cetera en tant qu'artiste boo xamante ni quoi qu'on puisse dire moom moo nekk koo xam ne il e au devant de la scène au Sénégal mais aussi gis nañ fa koo xam ne moo di Queen Latifah moo fa joxe woon benn spectacle boo xamante ni dafa reprendre benn son wu Love's in Need of Love Today bu euh, Stevie Wonder Taylor Bennett nga xam ne moo di frère Chance the Rapper moom aussi def na fa benn euh, prestation au le vendredi Euh, euh, euh, qui le samedi soir aussi euh, All Star Game yi amoon na concours à tir à trois points yoo xamante ne gisoon nañ ko fi aussi xam naa soxna Fall moom bu fi ñëw la mu gën ay leer Wally ànd ak ñaaxa manager euh, qui est Ndiaga Samb ci la indi polémique peut-être des pré ñu ne day joué ñu ne lii gisoon nañ si côté ki nga xam ne moo di tàkko ci yeneen ki xam Euh, Celtics ak yooyu noonu et cetera donc à chaque fois ñu indi yeneen yu bees je pense que Sénégal. on on l'a même pas vu dans le snap avec ses euh, musiciens. alors qu'en général quand Wally Seck. Euh, mm-hmm. preste quelque part. Mm-hmm. dafay ci snap yi dañuy gis li nga xamante il connaît juste son public. il connaît son public. d'où la stratégie bi ma lay wax diversification fonctionne à mhm. merveille. Mm -hmm. Je trouve ça intelligent. Il, mm -hmm. il n'est pas bête, hein, le garçon là. Il est mhm. fort. justement <laughs> il non il est excellent Wally Seck man dama laa bëgg mais moom wax dëgg yàlla te fi nga teg tànk boobu la aussi. nit nit nit de day dem pour prestation. ñun ñoo toog interpréter ko muñ safee. on adore interpréter te ba il a dit la famille pour ceux qui n'ont pas eu l'information je ne jouerai pas ce week-end ni au Penc Mi ni au Baramundi ni au Vogue je suis en déplacement aux États-Unis pour une prestation au All Star Game à Chicago. prestation. Non, mais une voilà. prestation est très large. Voilà. cest une prestation n'est pas uniquement ah, que prester, chanter sur scène. Voilà. Il peut aller là-bas pour mhm. sa présence, c'est une prestation de, comme comme comme que quand tu parles c'est mhm. la musique waaye non non sénégalais mooy non prestation. non non Asma. <laughs> la prestation de. Asma non la prestation de Asma. c'est ah, ah. présenté c'est présenté ma prestation est aussi à l'accueil ma prestation se limite aussi. yaay Fat Ndiaye Kumba Anta. Sénégalais yi la musul gis yi la musul donc interprétation la. non non du interprétation non non non tey jii nii Wally mu ngi may setaan bu dee warul bind damay dem defi prestation foofu dafa war a gaañi. on m'a invité séntu leen ma. maa nga all star séntu leen ma tekki ko ci tubaab nit moom waxante dëgg tekki ko ci tubaab loolu léegi nag après. attendez-moi après séntu leen ma attendez-moi à Chicago. voilà à Chicago et comme c'est un chanteur. Euh, voilà et qu'à chaque fois qu'il donne rendez-vous et que il décline de surcroît des concerts. voilà yoo xamante ni c'est des des rendez-vous donnés. sachant l'importance du rendez-vous donné. c'est ça fallait qu'il crée un peu un mythe. maanaam le doute après nag après nag bon. mun nga buzz mun nga def lu ne mais toujours les mots comptent. sont importants ba pare ba pare asma ba <laughs> même Wally même bu bindul woon là là c'est là on on moi je lui parle en en conseil je lui parle pas en tant que quelqu'un qui qui diagnostique. Mhm. c'est un petit frère je lui parle like nii. Mhm. c'est-à-dire que. te mi ngi ñuy seetaan. oui un truc comme ça un super la may woowee. un truc comme ça tu tu ne joues pas sur les mots kenn matul nag. Hmm. par contre Wally tout ce qu'il fera son public lui pardonnera les gens ne gèrent pas ça xam nga les gens li ñuy gérer ñaar la ñuy gérer ak Ndiaga Samb Ndiaga Oromale <laughs> ak ak ak xarañ. toj nañ États-Unis c'est ça que les gens vont gérer. Ouais. après le reste nag sujet thématique beeg yooyu il faut qu'ils fassent attention la prochaine fois. Ouais, parce que ah, man man fecc yi ñi jël euh, kii américain yi. Mhm. man non Facebook bi laa ko seetaanee <laughs> démb si guddi moo tax ma guddee tëdd. Ficha Sénégal moo ko def Ficha Sénégal moo ko def <laughs> donc moom dawul coow macha allah alors euh, vraiment euh, lii la woon même ki nga xamante ni dégg nañ ñi ko jege woon et ñu ngi doon wax ni que dafa demoon di nekk en réunion tout le temps ak ñi nga xam ne ñooy les membres de NBA et cetera nañ ni euh, toppatoo bi nga ko toppatoo peut-être euh, via Snapchat bi nga xam ne gis nañ ko parce que c'est devenu viral euh, le snap de Niang nga xamante ni tout le monde le suit de près lépp lu mu dugal ci saa si dañ koy capture moom tamit il buzz il va au influenceur moo lay wan ni léegi dinañ dem ba influenceur réseaux sociaux mooy gën a faire valoir boppam moom la ni ñi di gën a jox bopp que ñi nga xam ne ñi ngi ci tele bi donc juste pour te dire que loolu ñuy tuutil nii yow tamit gënu crédible ñu bëri CEDEAO bu ñu demee loo xam ne sa bët nga koy gisee quoi. bokkul loo xam ne dafa Cissé Lo waxoon rek. exactement man ku ma waneel laa soxla. sincèrement CEDEAO keroog bi ñuy kaas ne yóbbuñu journaliste yi eh, defuñu ko médiatiser wuñ ko ni ko war a médiatiser ñan lañu yóbbu c'est parce que ñan il a de la valeur peut-être boobul euh, Sénégal ma di xalaat li weesu wala li mu jot a gis wala lu négatif ci nit il faut prendre ce qui est positif yaa xayta li nga tànk ko sànni ko ci poubelle bi kii wax peut-être di nga gis ni muy waxee du la neex wala dara mais jëlal xam-xam bi ne ci moom nga segg ko muy doole loolu li ci des nga yóbbu ko nag tuut foo ko teg yaa xam noo koy defee nag ñu ngi ko tere a avancer donc mi ngi noonu donc di remercier bu baax Sachine nga xamante ni moom élève de Wally Seck la majeure partie de tout ce qui est moom ci moom man ak moom ñu di déggoo moom moo yor page Wally Seck info Wally Seck news laajte gëstu et c'est très important dafay manqué fii ñu bëri dañuy génne info jëlee ko si réseaux sociaux yi rek ñoo tasaare ko te du damay bañ xam nga gendarmerie foire daf maa jege te buñ buñ lay jël si bu dee fi nga dëkk dafa jege police bi dañ lay diri te sama dëkkandoo yi dañu doy waar mais mais kii wax na lu am solo léegi lu nga doon wax léegi nii mm. sur euh, information ñaa ñaa woy en parlant de ñaa euh, ci jamono bi ñuy wax affaire CEDEAO bi bi mu mm. demee euh, filmer si c'est l'eau affaire mhm. moi mon avis était <clears throat> aduna nit day tolloog jamonoom. n'est pas journaliste. non mais Niang a fait quoi il a pris un appareil utilisé quoi à dessein. ouais am objectif. tous les journalistes qui ont râlé j'ai dit sur le principe. Mhm. par rapport à la corporation ils ont raison. par mhm. contre là où moi je suis d'accord avec Niang. dafay dund jamonoom et que à la presse mhm. de s'adapter la presse ne fait pas de snap au moment où Nia le fait et que ça marche pourquoi la presse ne le fait pas il faut savoir changer la donne adapter ko à la réalité la presse doit pouvoir aujourd'hui mhm. aussi bien influencer que Nia Nia mu ngi jël di snap na journaliste yi jël seen téléphone di snap. mais journaliste yi ñoo ngi koy def. te loo ci xamul mais trop tard on est maintenant à la digitalisation. am a ah boo xoolee ñu ñoo ngi nii ci Facebook live bi. ñoo ngi nii ci loo loo xamul li mu dugal loolu la site yi dugal loolu la télé di waxtaanee maanaam moom il est là-bas juste pour nous faire. Euh, li nga xam mooy reportage après ñun c'est un reporter finalement. oui c'est devenu un reporter. dafay mënul chapeau yi rek waaye. rappelons mm que par exemple le cas de ñaam mën na similaire à ñoo xamante ni y a dix quinze vingt ans dañoo nekk les premiers yu lancer les infos sur la toile ouais. le cas de Seneweb mm. Salam Fall qui le propriétaire est un informaticien